yéen a ngi fàttaliku woon keroog buñ doon taxaw ak yéen ci waxtaanu suba si noo ngi taxawoon ak yéen ci jikko joo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla tagg borom jikko ju kawe ji moo ñu jàngal jikko yu mu nampatal saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain mu doon jikko joo xamante ne keroog ba mu laajee ci jotaay ba toogoon jotaay bi di jotaayu waxtaan yamu seqoon ak lenn ci ay saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain muy laaj saxaabi bu mag di abubakarin siddiq radiallahu anhu wa ardah muy tontu loolu yonent bi doon laaj sallallahu alayhi wa moone moo ne ju noobul joo xamante ne foo ko na ko mooy jikko joo xamante ne xataa ko dul jullit mébét nga am nga yéene bu toll ni lamboo jikko jooju noonu saxaabi bu mag boobu di abubakar siddiq radiallahu anhu lambo ba yonent bi doon laaj Abubakar Siddiq di tontu njeexantalu waxtaan bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama na jikko yooyu de duñu daje ci jëmm doomu adama lu dut borom bi tabaraka wa taala ëllëg bés dina ko yërëm tàbbil ko ci arjana yu kawe yooyu nekk fa moom kon tey ñu bëgg sëf beneen buntu ci bunt boobu ñu doon waxtaan xam ngeen ne tàmm nañ du ubbee suñu waxtaan ak waxu boroom xam-xam su mag nga xamante ne mooy xasanul basri rahimahullah wax ju am solo jooju muy fàttali lenn ci askan bi nee na ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yowmun zahaba baaduk nee na yow doomu aadama bi xamal ne sa dund bi ay fan yuy jaar di jàll la ba tax na war ngaa bàyyi sa xel ne bépp bés ba ñëw jaar jàll dem loolu am na lu mu dund dindi ci sa dund bi bi maanaa bépp ba ñëw jaar jàll sa dund bi wàññeeku na ba tax na mu ne ibnu aadam doomu aadama bi de innama anta ayyamun xamal ne sa dund bi yëpp ay fan ya ngay fan yooyu dañuy ñëw di jaar jàll di dem ba tax na kullama zahaba yawmun bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduka am na lu mu dundu am na lu mu wàññeeku ci sa dund bi sa dund bi am na la ci wàññeeku nga déggee ci ne bépp bis ba jaar jàll ci sa dund bi dalay gën a jegeloo lii di dee dangay gën a jege sa bàmmeel ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla yónni ma yàlla tànn yónni ko ci xeer wi sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee ci xadis bu wér ba saxaabi bi di abdullahi bun mas'udin radiyallahu anhu solo nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qaal assalaamun ismun min asmaa'illah wada'ahu allahu fi l ard fa afshuuhu baynakum xadisu saxix axrajahu albani fi saxixul jaamic mbokk yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis ba saxaabi bu mag solo di abdullahi bun mas'udin radiallahu anhu neena naka suñu yonent bi di sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu assalaam jàmm assalaam xéewal ismun min asmaillahi tur la ci turu yàlla yi assalaamun jàmm dadi tur woo xamante ne min asmaillahi ci turu yàlla yu sell yi la bokk wadaahu fi ard borom bi tabaraka wa taala daal leen ko baaxe yéen wa suuf mu wàccel leen turam ju sell soosu ci seen kaw kon fa afshuuhu baynakum na ngeen weesaaroo na ngeen jokkalante na ngeen partager yiw boobu seen diggante seeni biir yéen waa suuf kon tur mooy assalaam tur boobu mooy jàmm tur boobu mooy xéwal tur mooy yiw kon yonent bi ne dafa bokk ci turu yàlla assalaam di jàmm di xéwal di yiw mu ne wadaahu llahu fi ard borom bi tabaraka wa ci yërmandem ci samay xeet ñewent bu mu am ci samay xeet ba tax na wàccel na leen tur woowu di assalaam di jàmm wala yiw wala xéwal ngeen nekk ak tur woowu ci kaw suuf si kon la leen war ci turu yàlla woowu mooy fa afshuuhu baynakum na ngeen ko wesaare seen diggante na ngeen jàmmoo na ngeen partage jàmm seen diggante na kenn ku nekk yéene moromam jàmm na njiit bi yërëm na njiit bi sëq jàmm ñamu jiite yow mi ñu jiite na nga sëq jàmm ñala jiite noonu lañ koy toppee ba ñu dem ci biir kër gi fekk fa kilifay kër gi na sëq jàmm ak njaboot waaye njaboot bi tamit nañu séq jàmm ak kilifa kër gi moo xam kilifa bu góor bi la pàpp walla moo xam kilifa bu jigéen bi la di yaay noonu la demee dugg ci société yi dugg ci entreprise yi dugg ci école yi dugg ci madarasa yi ci daara yi dugg ci fépp foo xamante ne ñaari kuréel la fa nekk ña jiite ak ñañu jiite nañu seq jàmm ndax lii la suñu yonentu bi digle sallallahu alayhi wa sallam tax na neena na assalaam jàmm de ismun min asmaillahi dafa bokk ci turu yu kawey daa bokk ci turu yàlla yu maggi daa bokk ci turu yàlla yu sell yi fi ard borom bi baaxee leen ko wërsëgal leen ko jox leen ko comme cadeau ci kaw suuf kon fa afshuuhu baynakum na ngeen ko jëmbët na ngeen ko dundal seen biir na ngeen ko jëmbët na ngeen ko dundal na ngeen ko partager wesaare ko seen diggante su ko defee ngeen am jàmm su ko defee ngeen dund jàmm lii mooy suñu yonentu bi salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi lim ñu yéene yal nañu yàlla may dégg topp amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ba léegi ñu di leen fàttali ne rek yéen a ngi ànd ak ñun fii ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu suba si ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ba léegi ñu ànd ak yéen ci ñaareelu buntu. ba nga xamante ne yenunti boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ci xadisu anas bun malikin radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabu ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmain muttafaqun alayh mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa cofeel ba jullit bi di war bëgg war am ci moom cofeel ba jullit bi nara am ci yonent bi sallallahu alayhi wa nattukaay baa ngi nii képp ku jël bi képp ku dégg xadiis bi nattee sa cofeel ci yenentu bu fekkente ne méngoo nag xadis bi waaw yow mën nañ laa joxoñ ne ku bëgg yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku jël xadis bi natteeku ko sa cofeel ci yenentu bi sallallahu alayhi wa bu dee méngoo nag la xadis bi di joxoñ fii yow man ngaa yëkkati sa loxo ne man ku sopp yenentu bi la sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bu ngi naan anas bun malikin radiallahu an anas di doomu malik yal na ko buur yàlla gërëm nee na nak suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu laa yuminu ahadukum kenn ci yéen ngëm yàllam du mat xatta ilayhi ba keroog man may doon ku mu gën a sopp cofeel bu muy am ci man muy ëpp cofeel bu mu am ci way juram cofeel bu muy am ci man yenentu bi mooy ëpp cofeel bu mu am ci doomam yi waaye cofeel bu muy am ci man mooy ëpp cofeel bu mu am ci nit ñi mboolem seen nga déggee ci maanaa xadis bi yonent bi nee na ngëm kenn ci yéen du mat lu dul man lay gën a sopp cofeel ba raw la mu soppee way juróom yi waaye sama soppe ci moom cofeel bu muy am ci man muy ëpp cofeel bu mu am ci doomam yi waaye cofeel bu muy am ci man yonent bi sallallahu moo war a ëpp cofeel ba muy am ci mboolem nit ñi moo tax mu ne laa yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi si ajmain kon bu dee cofeel ba nga am ci yonent bi natta ko ak cofeel bi nga am ci say doom bu dee cofeelu yonent bi moo gën a ëpp cofeel ba ngay am ci say doom naam marqué nga benn point waaye cofeel ba nga am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam natta ko ak cofeel ba nga am ci sa wuy jur bu fekkente ne cofeel bi nga am ci yonent bi moo gën a ëpp cofeel ba nga am ci say wuy marke nga ñaareelu point waaye ba léegi nattal sa cofeel bi ci yonent bi ba xam cofeel ba nga am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee moo gën a ëpp cofeel yi nga am ci nit ñi bu dee cofeel ba nga am ci yonent bi moo gën a ëpp cofeel ba nga am ci nit ñi ba léegi marke nga ñetteelu point kon ñetti ñi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa joxoñ na ko ci hadis bi bu fekkente ne yow jullit bay woote jullit nga bu dee sopp yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën a ëpp doole ci sa xol cofeel ba ngay am ci say doom ak ci say wuyjur ak mboolem nit ñi bu dee cofeel ba nga am fa yonent bi moo gën a ëpp doole cofeel ya nga am ci ñett ñi mu joxoñ fi kon yow manees nañoo wax ne ku bëgg yonent bi nga sallallahu alayhi wa sallam ba tax na yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ci ndénkaane bu am solo bi nga xamante ne daka dénk saxaaba yam doon dundandoor ca jamono di uqbata bun aamir radiyallahu anhu qaal qultu ya rasulallah mal najaat qaal amsik alayka lisaanak wali yas'aka baytik wabki ala xati'atik saxaabi bu ñu naan uqbata bun amir radiyallahu anhu qaal nee na qultu yaa rasulallah yow mi yàlla yónni mal na jaad ana lan muy mucc xool yonent bi ne ko amsik alayka lisaanak til ma sa làmmiñ boo ko defee dinga mucc mucc ngay laaj fexeel nga téye sa làmmiñ ci wax ju bari walla waxu folklore wala waxu mbóosóor walla wax lu du dëgg wala wax ci jëw téel ma sa ci bépp wax ju amalul njariñ tiil ma sa ci bépp wax bulay lay faggul bàkkaar tiil ma sa ci bépp kàddu bay taxa noonoo yàq nit ñi tiil ma sa su ko defee dinga mucc mu ne ko bi léegi wali yasaaka baytik nan la sa dëkkuwaay doy yaatuwaay bi maanaa na sa tànk gàtt bul génn di taxawaalu bul génn di dem fala la amalut njëriñ na nga supprimer grand place yeeg place yi nga xamante ni kilo fa gis ngay taxawaalu wala nga di fa toog dalay xeeb ndax mbedd taxawaalu toogaanu mbedd du jikko kilifa du jikko nit ku baax ba tax na mu ne ko wali yasaaka bayitik na la sa dëkkuwaay doy yaatuwaay sa dëkkuwaay nu mu xat xat xat na la doy yaatuwaay na gàtt tànk boo demee bay génn waay waay waay na la farata génne na nga dégg noddu xayaala salaa xayaala falaa na yii génn na lii tax nga génn nala la jokk mbokk génne na la doxi farata génne waaye dox di taxawaalu nanga ko jombale sa bopp moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne sahaabi bi ne amsik alayka lisaanak nang ma tiil sa làmmiñ ci bëpp wax ju la amalut njëriñ amalut nit ñi njariñ ñaareel bi mu ne ko wali yasa aka baytika na sa dëkkuwaay doy la yaatuwaay sa dëkkuwaay nu munti mel na la doy ci yaatuwaay ñetteel bi mu ne ko wabki ala xatiatik na nga dugg sa ruqu ngay jooy say bàkkaar na la sa bàkkaar doy problème na xelaat say bàkkaar la la ka tax a defloo na nga jéggalu ci sa boroom ngir mu jéggal la képp ku programme lii sa dundu dootoo fi nekk di wax lu ñor ak lu ñoru dootoo fi nekk di taxawaalu fu ne nga dem lu ne nga nekk ci ndax dangay charger sa bopp programme joo xamante ne moo lay occuper moo lay surcharger moo lay doy xalaat ba tax na doofi fi nekk di wax lu ne walla ngay taxawaalu fu ne mbokk yi yann jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa saxaaba yu mu yar yar leen teg leen ci yoon kenn ngi nii di sufiyaanu thawri rahimahullah moom it mu wax wax ju am solo nee na sukuut zaman sukut wa luzuumil wa raadin kuuti ila an tamuut qaala sufyaanu thawri sufyaanu thawri nee na haada zamanu sukuut jamono ji ñu tollu nii de jamonoy noppile le tiye sa làmmiñ jamono bi ñu toll nii nee na jamonoy tiye sa làmmiñ la de bañ bari wax wallu wa bu yuut ak jamonoy dëkkee di toog sa kër bañ di taxawaalu ci biti waaye jamono ju ñu nekk nii ba léegi waraadin bil quut ila an tamuut na nga doyloo na nga muñuloo la yàlla dénk astuut tuut ya ngay mos ci ñam ak naan num munti tollu bi keroog ngay dajeeg sa boroom lii yëpp mbokk yi da di xeetu tàggat sa bakkan ci la nga xamante ne moo lay muccal ci li nga xamante ne mooy tax nga mucc la yonent bi wax ci hadis bi la boroom xam-xam di Sufyaanu Sawri wax ci waxam ju sell ji képp ku ko dëkkee di nga mucc di nga musal ña nga bokkal pénc bi moo tax yonentu bi ne saxaabi bi ne mucc boobu ngay laaj mooy amsik alayka lisaanak na nga téye sa làmmeñ bañ a wax lu ne waaye nag wali yasa aka baytik na sa dëkkuwaay doy yaatuwaay wabki ala xatiatik na nga dugg sa ruqu di jooy say bàkkaar di jéggalu fa sa borom ngir mu jéggal la képp ku chargé boppam yii dooto fi nekk di wax lu ne wala di taxawaalu fu ne ndax lii doy na la programme ba tax na Sufyaanu Sawri rahimahullah moom it mu daldi di feelu xadis bi mu ne haza zamanu sukuut jamono bu ñu nekk nii ko yeboo nanga meye pat nanga noppi tey sa làmmiñ bu farata jotee waxal boo paree nanga ne cel waaye nanga nga dëkkee di toog sa kër moo tax mu ne wollu wallu bu yuut jamono ji de jamonoy saxoo dëkkee sa biir kër la wa raadin bil quut jamono ji de jamono la boo xamante ne astuut bu la yàlla dënk na la ko na doyloo na la loolu doy nga di ñam astuut di mos lay lalay lay ko xiif ak mar nanga nga doyloo lu tuut lan la sa dépense bi tollu ba keroog ngay dajeg sa boroom ki dëkkee li yonent bi wax ci xadis nga géem a tënk sa bopp li boroom xam-xam bu mag bi wax ci suufu xadis bi su boobaa dangay daldi mucc waaye dangay musal ñi nga bokkal pénc bi bi léegi yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi moo ñu baaxee ci la nga xamante ne mooy ñaan bi nga xamante ne képp ku ko ñaan jamono jangay waaj a tëdd masalan waxtu bu ñu jógee ko nii yéen a ngi fàttaleku waxtu si yu weesu noo ngi doon waaj a fattu di waaja a dallu di waaj nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jàngale ne jullit bi noonu na wara waajale nelaw bu muy waaj a sóobu ñaan ba nga ñaan boo ko ñaanee comme nam ko jàngalee moom sallallahu alayhi wa nelaw bi dañ la koy bindal kom jaamu yàlla dañ la koy bindal kom kuy jaamu yàlla sa nelaw dañ la koy bindal yiw ngay nelaw nga defee ko comme naka yonentu bi jàngale sallallahu alayhi wa nelaw boobu non seulement ci am yaram bu dal waaye na ko yonent bi jàngalee képp ku ko defee nii dañuy def sa nelaw boobu kom jaamu yàlla ba tax na yonent sallallahu alayhi wa moo jàngale ne jullit bi buy waaj a fattu buy waaj a dallu walla muy waaj a nelaw na wax ni bismika allahumma muutu wa ahya ci sa tur bu màgg bi yàlla ci sa tur borom bi ci sa tur yu màgg yi fees dell ak kaaraange maa ngi làqatu fa yow ngir nga aar ma ci dee bu ndaw bu may waaja suubu nii di nelaw ak boo ma delloo sama ruux bi ma ximmaliku jóge ko ci nelaw kon maa ngi làqu sa yu fees dell yooyu sa tur yooyu fees dell ak kaaraange maa ngi làqu sa tur yooyu ci dee bu ndaw bu may waaj a sóobu si nii di nelaw waaye maa ngi wéy di làqatu ci sa tur yu fees dell ak kaaraange boo ma delloo sama ruux nga continuer di ma aar moo tax nga ne ko bismikallahumma amutu wa ahya ci sa tur bu sell bi borom bi ci lay làqatu may waaj suubu ci dee bu ndaw di nelaw waaye bu ma ximmale ko tamit ci lay làqatu ma ngi lay ñaan nga continuer di ma ar ba tax na moom sallallahu alayhi wa sallam mu daal di ñu jàngal comme waxtu bu ñu toll ni képp ku yeewu ci nelaw la nga war njëkk a wax mooy alhamdulillahi lazi ahyaana baada ma amatena wa ilayhi nushur sant ñeel na borom bi nga xamante ne moom ma delloo sama ruux gannaaw bi ma duggee ci dee bu ndaw di nelaw waaye nag dee dëggintaan faatu dëggintaan nga xamante ne dañuy dellu ci moom bu jotee ci moom dong lañuy dellu mooy la alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur firi kon képp kuy tëddee nii boo yeewoo nga ñaan ñaan wi sa ñaan bi buñ ko nangoo dañ la koy defal comme jaamu yàlla mbokk yi yëgsi nañ fu ñu war a yëkkatee jotaay bi waxtaan bi jeexul suñu gaa yi war a joxe xibaar ñoo nekk ni ñu war leen jébbal béréb bi di leen ñaanal yàlla suñu borom tabaraka wa taala yan nañu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin ja'alana allah wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma aminna fi awtanina waslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ihfaz biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم wa nafani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikril hakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahi wa barakatuhu ahi wa barakatuhu ahi wa barakatuhu